salaamaaleykum abone Dental TV tey ñu ngi fii ci foyer des jeunes de ñag animateur euh, Djibril ci art international tey ma dalal sama benn ndaanaan boo xamante ne du ma ne man maa koy présenté mais mooy présenté boppam El Hadj Ndiaye salaamaaleykum grand. maaleykum salaam wa rahmatullah taala ngi leen di nuyu di leen bëggee yéen waa Dental TV. ci invitation bu rafet bi nga xam ne moom ngeen ma defal pour ñuy waxtaan ci li nga xam ne man moom laay liggéey muy aar waaw donc euh, man la El Hadj Ndiaye El ñu may wax lui moom moo nekk sama tour artiste donc euh, yaakaar na ñàgg fii ñëpp xam nañ ma parce que fi laa tàmbalee aar bi may def depuis 92 93 94. waaw yàlla def ci ay jéego nak ba mu agsi fii mu agsi actuellement ni quoi ma len di remercier bu baax ci invitation bi. <laughs> bon lui dina ci sawar a wax parce que lui du dara lu dul yàlla dafa def bima tambalé di def art tout le temps dama nan gis sam bop luma defar xamné mako defar may dem di dem di dem ba ben instant nak limay defar xamatu fu muy jóge waaw may def muy yéme di ma yéem di yéem nit ñi ma xamné amna lu ci rax loolu motax à la fin sax mujjigi gi mënatuma signé El Ndiaye dama ko mujj bàyyi may signé lui mais lui bi yëpp du dara lu dul delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo may inspiré di ma la donc euh, c'est une partage bo xamné dama ko def ak le monde bi nga xamné mom <laughs> moy monde euh, bi may inspiré bi may dundal dima jox sama création ak euh, ainsi de suite donc ce n'est plus El Ndiaye mais c'est lui buñ nañ des tuuti ci luy bi ba léegi. parce que luy day delluwaat ci turu yàlla. comme que comme que yow dem nga ba gisatoo sa bopp rek ça veut dire ne foofu yow jàppatoo ne yow yaay def danga delloo mbir mi lépp ki nga xam ne mooy allah subhanahu wa taala. <laughs> waaw loolu moom moo indi luy bi. ok loolu leer na loolu leer na. ñu gis ne yow yaa ngi ci art peintre bi. yow nan nga ñuy définir aar bi ngay def art peintre bi ngay liggéey yow nan nga koy nan nan nan nga koy définir. am na définition bu gàtt bu ma lay jox rek. du lenn lu dul yëg-yëg. waaw gis nga aar ni boo ko bëggee définir nit ku ne ak nu muy définir aaram parce que àdduna bi mu nekkee àdduna ba léegi aar moo koy dundal booy xool tey àdduna lépp lu fi nekk aar la ba mu yàqoo nag la nekk leneen waaw ndax même aadama bi ñu ko bindee yàlla da ko dugal aljana aljana aljana lu yàqu amu donc lepp yéme won lepp nek kéman ba ñun ñi mom lañuy ñuy pour def lu baax pour mën fa wat donc aar mom la yalla moñé aduna bi lepp waroon nek arangé wa lepp arangé la waroon nek ba paré nak war nek aussi tarangé wa ñom ñep ñom ñoo ànd mais gis bo bëggé définir aar ni chinois bi ni mu koy définir bokul ak anglais bi ni mu koy définir français bi ni mu koy définir olof bi ni mu koy définir art c'est le monde de l'art c'est le monde de l'âme am ruux ci boppam fa lay dund donte nit ñi xamuñu ko waaw ñi ngi lay defal définition bu nekk ñu koy jagleel ku nekk mais art boo ko définir rek daanu c'est la vie art sa art c'est l'éternité lépp lu beau c'est de donc moo tax ma indil la ne la moom aussi ci boppam moom la ñu mooñee aadama moom la ñu mooñee aljana moom la ñu àdduna booy xool rek di nga ko gis léegi donc boo ci nekkee nag lépp loo mënti jël ba mu def ci taaraange waaw ak aaraange loolu mooy aar waaw donc du dara lu dul yokk moo tax ku ko gis nu mu mënti doon da koy bëggee boo defee peinture ñu bëggee boo defee muscle ñu bëggee loo mënti def ñu bëggee parce que yooyu yëpp moom moo nekk ci alam bi waaw yooyu yëpp moom mooy dundal le monde de l'art d'accord léegi yow bu ñu gisee art d'après ni nga ko définir maintenant il te faut quoi pour nga nekk artiste kon waaw un artiste nag du lenn lu dul koo xam ne yàlla moom moo ko defal yëg-yëg boobu noonu lépp mën nañ ko jàng pour man ba mu des aar gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci école yi ñu dem jàngi aar dama leen di wax ne ñoom képp koo xam ne amoo ci don xamal na yow ab artisan nga tu fekk que copier non je le jure waaw ah, ñoom ñëpp affaire dafa créer dafa indi benn jaxasoo boo xam ne nit ñi xamatuñ lan mooy aar gis nga aar nekkul lenn lu dul don buy jóge ci yàlla benn nit mënu fi nekk wàll yu benn nit mënu fi nekk prophète benn nit mënu fi nekk lenn loo xam ne dafay jëmmal ci wàll woowu noonu lu dul yàlla def ko ci yow donc bu la yàlla mayee aar nag dama ne nga dem nga jàngi ko foofu soo ko jàngee mën nga nekk artiste donc ay école des beaux yi ngay dégg ak euh, centre yi formé nit ñi loolu baax na parce que ñooñu dañ koo am mais gis nga boo ko amul nga dem fa di jàng yow mu fa doo mos a nekk artiste artisan ngay doon te boo gisee art bi mu am problème léegi muy sooxee loolu la artisan yi ñoom ñoo bëri lu nekk dañ la koy rëddal créer la ko il sait même pas l' l'expliquer boo waxee ñu ne fii lañ ko jànge fii lañ ko defee te xamuñu dara donc pour nga nekk artiste il faut yow nga am don boo amee don nag nga dem ci école yi ñu jàngal la sa xam-xam gën a yokk waaw nga am savoir faire bi su ko defee nga dem fu nek lo mënti def su ko defee sa aar dundu dina su boobaa lo créer ti ding ko meuna définir ding ko meuna toj def non def non def non def non donc man non la gisee quoi loolu nak soo ko jëmee expliqué daanu gis nga maa ngi lay wax ben affaire gis nga luy bobu noonu artiste bi période bi nga xamné mi ngi liggéey œuvre amna ci woy amna ci fecc amna ci lu nek instant bi ngay def li ngay def du nek yow loolu motax yow dina am lo ci yegg nga gis ko mais keneen dina la ci wax yow itam loo xam ne di nga ko mën a xool en tant que dimanche doo ko gis waaw dama lay wax rek benn bi may jéem a commencé di expliquer tableau am na benn enseignant bu mosoon ñëw mu xool sama tableau man maa ngi ciy wax la guerre du golfe mais moom bi ñu ci ñëwee mi ngi ciy gis amour ay <laughs> xoolal ñaari monde yi ni ñu contradictoire man guerre laa nekk moom <laughs> moom mi ngi ci affaire amour léegi après mu daal di ruus. ma noppi bàyyi ko moom mu expliqué ma bàyyi ko mu dem ak explication donc tableau bi nekk na ñaari tableau léegi donc loolu moom moo tax ma ne boo ko jéemee expliqué rek da ngay daan mais am na foo xam ne comme man tey su ma amoon benn santiment de malheur boo xam ne maa ngi am lu may dund lu ma naqari ma koy dund foofu c'est man maay defar te su may defar dafa am idée boo xam ne idéologie boo xam ne moom laay défendre léegi loolu moom moo tax. d'accord ba léegi rek ndaanaan nga parce <laughs> que yow <laughs> ba yow ba léegi yow génnoo ci cadre ndaanaan. léegi yow ñu gis ne yow say œuvre ñun bu ñu seetlu say œuvre am na multitude de chose yoo xamante ne nii ñun def ñuy yëm. waaw et puis ñun dañu gis ne yow au début sablage nga da nga doon sable sablage laa commencé waaw. à fin ñu gis la ngay laal. peinture waaw lan moo waral transition bi. merci waaw merci parce que boo gisee sablage de maa ngi commencé def sablage 2000 euh, euh, astafirullah azim 94 laa commencé def sablage. maa ngi ko commencé géejawaay bi ma commencé géejawaay ma ñëw ñàgg laa découvrir lac bi fii am ay antiquaires yu ñëwoon visité ma bi ñu gisee œuvre yi ñu ne ma grand yow tu es un artiste boobu xaw ma sax ne man artiste la ñu jël tableau yi yóbbu ko jaay ko temps boobu ñu ngi ko jaay xaw ma ñaata ñu indil ma xaalis bi nekk xaalis bu bari yaa ngi comprendre ci benn jour lañ ko jël ñu dem jaay ko dañoo ñibbisi sama papa ne ma artiste nga mu nekk lan mu ne ma artiste. <laughs> moom moom tableau sablage bi. <laughs> waaw tableau sablage après may am ay commande may def ay sablage. bay xol 94 95 96 ba 97 yalla def aussi may jékki Europe ay tubab di jóge fu nek di ñew di laajte El Hadj di jënd samay tableau et puis dima bëgg gis dima rencontrer des fois damay am ay carte postale yo xamné dañ may bindal invitation né ma bés bo ñëwee Europe na nga ñëw suñu kër né man sama xel mosul won nek sax ci ay dem ay Europe affaire yoy non mais ma xamné donc art bi mom momay jaay donc lepp luma ma doon defar itam doon na dem di génn di àgg foo xam ne man mosuma fa mën a dem ñi di ma wax yow te li la bëgg élage te li la bëgg te bëf bu la yalla indé Europe nga mën nga ñëw nga xol donc non la démé mais par rapport ak li nga xamné mom motax ma ma def peinture ma ngi commencé peinture 2001 wa le ben sama ben xarit euh Fabrice mu bind ma benn lettre ci cadeau anniversaire bi mu ne ma élage defar peinture parce que li ngay def ni ci sablage bés boko défé peinture aduna bi ñëpp dinañ la dégg mom tam ma ngi profité occasion pour saluer ko tout le temps ma ngi koy saluer sax ci affaire bobu

parce que fi ma jëmoon àgguma fa sax ma def finition après ma jaay ko tableau boobu noonu et boobu noonu booy xool benn veuve la koo xam ne man ak moom ñoo doon dund yàlla jël ko bi ko yàlla jëlee njabootam bi yëpp mu def xam nga donc loolu pour nga représenter ko yombul waaw donc table bi lépp lu nekkoon ci tableau bi day wax ma koy liggéey di ko liggéey tubaab bi ne ma kii moom mënul dem fenn man maa koy jël moom itam noonu mu jël ko ba léegi mi ngi këram. ba léegi fierté la am na exposition yu bëri may def damay àbb tableau bi ma dem présenté ko dama ciy dégg prix yu dul jeex nag mais mënatuma ko jaay parce que gayaan bi moom moo ko moom donc itam loolu na pour nga xam aar ni muy demee aussi mën loo xam ne yow da nga yaakaar yaaka moom fekk ñeneen ñoo ko moom nit mën na ko jënd yaakaar ne moom moo ko moom fekk moomu ko tableau boobu sama tableau la léegi comme li ñu doon expliqué sànq yow mi ko defar yaa ngi ci moom mu ñëw jël ko moom est-ce que yëg-yëg bi nga ci amoon moom moom la ci amaat amu ko man maa ko gën bëgg tableau ba léegi te yàlla bu defee ba jamono neex mën naa ko ci fay ay millions billahi wallahi <laughs> te tableau la boo xam ne bëgguma ko représenté waat aussi waaw parce que boo xasee bay représenté tableau nga defar ko defaraat ko rek yaa ngi dugg commercial léegi defarootoo ko ngir inspiration mais na nga koy defar ngir xaalis donc foofu c'est le monde business moom la nit ñi bëri di def léegi. d' accord léegi yow ñu vu à travers say œuvre ba léegi. Hmm. multitude de couleurs yi ngay utiliser léegi yow avant ñuy dugg foofu expliquer ñu couleur couleur couleur primaire affaire yi. primaire affaire yooyu non. bon bon xam naa nag xam nga nit ku ne ak sa formation gars yi créé nañ fi couleur àdduna bi yëpp ñu ànd d'accord ci mais maanaam mooy Athaman, bu bleu nekk couleur froide nga jóge fa dem ci jant bi nga xam ne mooy leeral ba ñu mën a gis les couleurs nekk couleur chaude nekk jaune. Les jaune ak verte ak bleu qui boko ko jox la verte nek monde qui ngay garab yi comprendre mu indi goudi mu nek couleur bu ñuul nek neutre ndax dara blanc nek neutre bo sa question la couleur primaire yi niko ko waxé moy nga base mais nak lepp lo xass ba léegi yaangi ngi dugaat ci yeneen couleur muy les couleurs secondaires waaw légui secondaire maanaam mooy addition boo xasee ba additionné ñaari couleur rek léegi yow yaa ngi génn ci monde primaire léegi yaa ngi dem ci monde secondaire donc c'est le mélange nit ñëpp ku nekk yaay xool yow looy toggee sa añ yaay xool looy mélanger yaay xool yu looy defaree loolu moom mooy mooy bagage bi quoi te am na beneen affaire aussi nit bu ne dafa am couleur boppam artiste bu nekk dafa am couleur yoo xam ne moom la mën a liggéeyee en plus tableau bu nekk dafa am couleur boo xam ne moom la lay laaj moom tableau bi du yow yaa koy imposé mais moom moo koy laaj moom mooy laaj ay couleur am en plus atmosphère bi nga nekk di liggéey des fois bu fekkee àndul ak yow li nga bëgg a li nga bëgg a aussi couleur yi dañuy bañ duñu ñëw. du dara lu dul euh, mbégte mbégte boo xam ne man dama ko am ci euh, le monde de l'art bu fekkoon ci personnalité la mën une personnalité bi moom yàlla laa ko parce que moom moo yor mais le monde de l'art ni def na lépp loo xam ne mos naa ko wone ci aar suñu borom daf cee def ndam maa ko mu sama ministère Luxembourg je faati dem France jóge fa encore fii hôtel yi ñëpp ma xam ndax le monde de l'art ay kii ay ay ay ay Étoile du Lac ñoom ñëpp ay kii ñoom ñëpp ma xam ndax art bi ma doon def ndax man maa leen doon décorer liggéey naa fa ba waa ambassade France yi fekk ma fa ne ma boo fi ñëwee ñëwal ambassade ñu may la visa nga dem France billaahi wallaahi tallaahi maa ngi gërëm le monde de l'art ndax lépp lu ma yóbbu itam fu ma ko mënti yóbbu dafay yéeme exposition bi ma def France galeriste bi bi ma ñëwee moom ay affaire prix la doon wax boobu gisagul tableau ma dem ma indi tableau yi fekk mu am rendez-vous muy dem rek gis ben tableau ne ma ndax mën naa ubbi beneen day ubbi beneen jëkkër ji ne ko non nañ dem nañ dem mu ubbi beneen après jëkkër ji taxaw ne ko ubbil beneen bi ci def mu dem ubbi doom ji daal di daw ñëw ñoom ñoom ñu wàcc oto bi ñëw di seetaan ñu ne ma oh, am nañ problème man leen ah lan mooy problème mu ne parce que prix yi ñu la waxoon ne moom la ñuy jaay tableau yi mënatuñ ko jaay parce que lii du tableau yoo xam ne ay prix nang naanaa la ci lañ yokkee prix yi ñoom ñoom ñoo def seen évaluation def yëpp. yokk samay prix man xaw ma ci dara ba léegi ñu ne ma yow sa tableau yi nangam ak nangam lay jaar loo xam ne ñeme ma ko wax Sénégal donc loolu itam mooy aar bi rek waaw contentement maalam mbégte la waaw di saluer fans yëpp di saluer gars yëpp gars yi béggee sama œuvre yëpp maa ngi leen di maa ngi di gërëm di leen sant di leen béggee aussi. ah mais loolu loolu moom dinaa ci sa war a tontu benaal bii nii man faalewu ma ko parce que xam nga moo tax dama nekk artiste nekk doomu Sénégal. yàlla def maa ngi la wax ne la ba ma juddoo ma dem classe CI la ma suñu maître monsieur Thila gaañu na njëkk a wax yàlla ko yàlla yërëm yokk leeram ne ma yow de su ma doon sa baay dinaa la yóbbu ñu jàngal la aar yow dessiner rek ngay def classe primaire yëpp dessin dessin maître yëpp maa doon dessiner tableau yi à waaw école Serigne Assane Fall maa doon dessiner yëpp yëpp yëpp yëpp donc ba yàlla def euh, noonu donc mi ngi noonu biennale bi moom. man je fu fous fu dem naa ba bëgg a participer ñu ne ma amoo niveau man tam ma ñëwaat toogaat ngemb ma dem Europe gars yi gis samay œuvre di jooy donc mi ngi noonu man je préfère ma liggéey Europe sax que ma liggéey au Sénégal parce que ñoom xamuñu du ñu dimbali seen doom du ñu dimbali seen doom fii loo fi nekk rek mooy loolu. duñ la jappelé duñ la ki dañ lay baye ba nga dem nak ba sonu wala nga dem ba am alal nak ñu doora wax né waji moy suñu way moy ki waaw motax tax ma man faalewu ma que biennale am Sénégal je m'en fous mais lepp lo xamné nak man mën ko def dans la population sénégalaise à travers mes biens et mes œuvres yo xamné man makoy créer di former ay nit di leen jappelé dina ko def mais laal je le fais parce que sama sama drapeau motax makoy def je suis sénégalais mais ay organisation ay biennale yi ni mom dundalu moo tax du leen defal politique duma ci wax len nak dunduma len leen faalewu dañ def lu leen neex man maa ngi def itam li may dund donc noonu la demee rek. ok gis nañ El Hadj Ndiaye lui un artiste boo xamante ne vraiment kenn du ko natable amu fi morom mën nañ ne amu fi morom waaw. Luxembourg sama jabar ji macha allah nuyu waa kër ga sama rakk yi <laughs> nuyu ñaar ñaar gi yëpp waaw ak fépp fu ma mës a jaar ci aat te ñu xam ma nit day fàtte maa ngi lay gërëm. di la sant di la di la di la ñaanal yàlla yàlla defal leen teraanga comme ni mu ma ko defalee mu am itam mujj bu rafet ndax loo gis rek mujj bu rafet moom moo am solo waaw te yàlla yàlla def seen njort yi itam mu bañ a bañ a yàqu li ngeen yaakaar ci ñun yàlla suturaal ñu aar ñu ba ñu mën ko taxawee di yóbbu Sénégal fu nekk waaw ndax jommuñu yàlla may nañu ko te incha allah lépp lu luñ ci mën rek dinañ ko def. donc ñu ngi leen di sàkku ay ñaan ku ñu mën ñaanal rek ñu ngi lay saako ay ñaan waaw di leen jaajëfal yàlla barkeel liggéey bi yëpp yàlla rafetal li ngeen di def yëpp yéen waa Denteel moom amu leen moroom yàlla yàlla taxawal leen te rafetal seen liggéey yàlla sàmmal leen boppam waaw yóbbu leen ba foo xam ne yàq du fa du fa àgg. dalaloon El Hadj Ndiaye di artiste peintre di di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje incha allah.